maaleykum wa rahmatullah. waaw. mais yaa ngi ëppali di bëri Jordan laa ngeen jox ma. mu ngi nii taxaw. kaay. kaay fii. kaay kaay nii. Jordan dama ko bëgg. na ñëw ñu bëri ma nag moom. tax du bëri ak man. pare nga pour bëri ak man. waaw ah, wax la moom mu pare na pour bëre ak man. pare naa pour bëre ak moom. ma oui ma. waaw ndax may neexal ma lay neexal ndax may neexal. ma lay neexal kon kon waaw kon demal neexal demal. waaw mais yéen neexal demal. waaw ma champion nga. waaw dëggu ma champion nga. yow ñeme nga maa jóg kii champion nga. kii ndaanaan nga. champion waaw mais ñu ñoo mën a mayante xaar. barki Serigne Touba Mbacke. mais Jordan pare na pour ñu Jordan pare na pour ñu bëre man ak moom. xaalis dinaa bëre keneen ku dul moom man nekk ma fi di xaar jeex na moo gën a leer combat bi moo dàqu ko combat bi dara dàqu ko. barki a Touba Mbacke. waruma ay jooy de man xale yu baax yi laay waruma yooy de. xam naa Jordan Jordan daanaan nga champion nga day dóor day xeex day bëre te instant bi ñu ñoo mën a mayante suñu biir xaalis gars yi dañ fee bàyyi kenn nangu koo jëg na ma jël. non amoon naa combat nag doomu dangu. waaw taxaw na. waaw ba ñu war a bëri mais promoteur bi moo jékki-jékki waxul lu leer. waaw moo tax ma ñëw tey pour leeral loolu. sama mu ma làmb boole nag muy moom. muy ñi ma la wax léegi. man damay liggéey bàyyi entraînement xale bu ndaw la damay liggéey. voilà noonu la ñu tegoon sama combat bi passé. barke ñoom Pape Sarr nañ dox loolu Jordan pare na pare naa combat bi dara